fronde dañu ne moo am ca biir APR ay militants yoo xamante ni dañu nekk en rébellion contre euh, Macky Sall yu leen frustré euh, mooy nag ay responsables locaux yoo xamante ni dañu décider euh, ne nag duñu considéré ne duñ leen considéré comme ay interlocuteurs daanaka nag seeni responsable local mooy ñi nga xam ne ñoo nekkee ca gox goxaat ya nga xamante ni nag ñoom ñoo war a daal di nag allié euh, daal di nag nekk seen lien entre ñoom ak président de la république Macky Sall ay jeunes yu alliance pour la république bu Pikine daal di nag janook euh, taskatu xibaar yi ni ki euh, démb ngir dénoncé fàtte gi ñu leen fàtte ci nag seen département boobule man seen mentor Macky Sall def lu ñu mel ni ñu nag depuis ba mu daal di accéder au pouvoir daf leen ignorer royalement ndax nag dañu constaté que pour Euh, déplorer que décision yu président Macky Sall ca nag euh, envers département bi ñoom mun ñu ko comprendre euh, te nekk na loo xamante ne mun ñu ko sax accepter ndax manque de considération sans commune mesure la bi les jeunesse mi nga xam ne ne ñu nag lépp la ñu jox APR dañ leen daal di beddi tegee leen nale dignité ñu ba fuye ko Euh, Serigne Issa Diop seen porte parole du jour membre bu COJER bu Pikine Ouest moo ko xamle euh, wax ci seen euh, déception ne nag c'est frustrant Euh, nekk sax lu métti ñu constaté euh, département moins important sur le plan politique gagné wuñu du local du législatif te nag ñu jox leen ay direction générale alors que Pikine euh, bénéficié ci dara renouvellement perspective yu présidentielle yi léegi itam Serigne Issa Diop daal di émettre ay réserve daal ne nag ay nit yoo xam ne dañu xiif te tamit daanaka des soucieux plutôt ci nag lu ñu war a lekk la ñu gën a talk ay euh, affaire politico politicienne amuñu temps ci opération de vente de carte de membre en tout cas euh, bi les euh, daanaka nag de carte Euh, euh, enchanté wuñu ébranlé wuñu ndax li ñu préoccupé moom mooy cherté de la vie euh, mooy daal di nag ut lu ñu lekk c'est pourquoi ñuy demander président de la république mu daal di recevoir jeunesse bu Pikine bi nga xamante ni nag dañoo maar ci daal di gis seeni retraité ñu daal di ni nag promouvoir ci ay postes de responsabilité te mënuñu daal di nag ñoom bénéficier wu ci lu nu mel te mu jotee ñu xeex xuloo nañu xeex na nañu gajjante màttante ngir APR tey ñu daal leen ni bedd tegee leen na ne du yoon du dëgg du yoon te nag seen responsable si boppam ñoom mel ni sax ñu liggéey ndax bëggatuñu sax ñoom ñu nekk seen lii entre ñoom ak président de la république Macky Sall lañu war a deflante ak ñoom kay am mooy ñu daal di wax dëgg Macky ngir mu daal di gëstu jeunesse bu département bu Pikine bi nga xamante ni nag local législative lépp dañuy daal di taxaw xeex euh, ba noppi daal di voté euh, ci nag euh, anam yoo xamante ne saay su nekk nag dañuy gis ni ñuy daal di nag neexee ci ñoom waaye nekk fii rek di wax yoo xamante ni amul bopp amut génn ñoom jeunesse si nee nañu nag dootuñu ko nangooti benn yoon te nag Macky moom mere nañu ko bu ñu bëggee bu bëggee dégg dëgg rek mere nañ ko ba fu mere yem. ak ñi naan pepe kale reefaan